fanweer ba ak ñeent ANSD wax nañ ni ay ndaw lañ yoo xam ni amuñu liggéey amuñu formation amuñu éducation ñu gis ni yow en tant que président de la république su fekkoon dañuy def xayma la lay indi si bopp réew mi ndaw yooyu le daanaka part bu gën a rëy ñoom la ñoom am espoir bu rëy boo xam ni sa mun naa wax ni si yow lañ ko teg mais question boobu monsieur le président ba Sénégal moomee boppam ba tey ñeenti njiiti réew ñu ngi woon sa ginnaaw mais kenn su ñoom amul saafara bi nga xam ni moom mooy saafara bu définitive tey nga ñëw am espoir ay ndaw fal la est-ce que question boobu noonu xam nga d'abord espoir bi nu mu toll ak itam si ban fànn nga fas yéene jaar pour régler définitivement cette lancinante question si ndaw yooyu ba tey monsieur le président de la république ñu bëri si ñoom dañoo ñàkk seen bakkan si at yi ñu génn malgré tout ce qui s'est passé ñu bëri ñu ngi continuer également di réclamer yoon def liggéeyam seeni dossier yaa ngi suivre actualité gis nga lu xew ces dernier temps lan nga leen yan état du Sénégal yan disposition tey jii la mun a teg ba nga xam ne au moins suba ku si yeewu di xam ne kat yoon am na loo xam ne def na ko seen dossier. d'abord par rapport ak emploi des jeunes maanaam naka la ñuy def ba ndaw ñi am liggéey identifier secteur yoo xam ne mën na absorber lu bari ci main d'œuvre maanaam des fois nit ñi ne nag amul liggéey fekk ne moom. boo ko laajee lan la mën a def formé wuñ ko pour mu def un travail spécifique à part bo liggéey boo xamante ne dooleem rek la ko mën a defee mais ala kuli xaal ki am formation bëgg liggéey mënul liggéey ak koo xamante ne amul formation wala formation des na ñoom ñaar ñëpp suñu préoccupation la maanaam ñi ñu bàyyi xel la ay levier yu bëri lañu war a yëkkati bokk na ci ñu xool secteur yoo xamante ne mën na mobiliser ñu bëri bokk na ci agriculture il faut que ñu ñaaxaat nit ñi organiser leen pour ñu bëri ñu mën a béy mën a dellowaat ci mbéy mi te bari na ñoo xamante ne bëgg nañoo béy parce que même ñiy dem ci agri immigration clandestine sans formation souvent sans qualification bu ñu demee foofu ci mbéy la ñuy nekk kon li ñuy béy foofu suuf ak ndox rek moo ko def ak xam-xam goo xamante ne mu ngi fi suuf saa ngi fi ndox maa ngi fi mais xëy na il faut que ñu yokk fi nga xamante ne mën nañ faa liggéey y avait des programme qui été la malheureusement ki n'ont pas été euh, concluants ci liñ ci doon xaar pas que programme bi en tant que tel baaxul mais xëy na ci niñ ko yoree la woon boo ngi dégloo ministère de l'agriculture ci fan yii yëpp mu ngi nekk di installer ay coopératives agricoles partout pas pour hivernage bi mais pour qu'après ça nit ñi mën a continuer am fu ñu liggéey bu ngeen xoolee ministère de la formation professionnelle mu ngi am di signé ay partenariat yu bari pour ñi nga xamante ne ñu ngi dans l'artisanat ñu mën a am formation bu gën a développé wu mën a am produit yu gën a baax mën leen jaay fi génn Sénégal pour mën a gën a màgg mën a gën a employé ñeneen état ci boppam nag conviction bu ñu am du état mooy absorber toute cette demande parce que du vocation état moo tax boo dégloo sama discours 3 avril 2024 li ma ci doon wax mooy dañoo bëgg créer des emplois pour des jeunes sukkandiku ci secteur privé bu am doole parce que état da koy jàppale ndax xam nañu secteur privé boob mooy mooy mooy mooy créer emploi kon la stratégie c'est à la fois de xool naka lañ leen di former pour que y ait adaptation entre les qualifications ak les besoins du marché côté boobu gouvernement baa ngi ciy def ay jéego yu am solo pour que ñu mën a nekk produit yoo xam ne non seulement entreprise yi fi nekk dañu leen soxla mais entreprise yi ñëw tamit dañ fi mën a implanté parce que xam nañ que mais main d'œuvre qualifiée est là mais qu'elle est aussi bon marché beneen bi mooy xool les autres secteurs notamment le secteur primaire bu ñu xaw a délaissé xool tamit le secteur secondaire naka lañ koy renforcer parce que secteur tertiaire bi rek muy service yi dafa saturé malheureusement l'essentiel des formations fa la donc bu secteur primaire ak secteur secondaire maanaam industrialisation gi demee noonu transformation développé bu boobaa dinañ am une plus grande demande de main pour mën a absorber ndaw ñooñu kon cette stratégie là est en pied d'œuvre te incha rabi di ngeen gis ne que dans la vision comme dans les euh, dans le nouveau référentiel dina ci am euh, euh, pàcc gu am solo gu gu gu gu ndaw ñi jël nañ bu baax baax baax claire conscience parce que li au delà du fee même ko ñoo ma fal mais daan gis rek ay ndaw ñuy jël batu wala gaal di génn réew mi naan dañuy uti ji liggéey ba yenn yi di leen ci fekk loolu waxuma sax nga am responsabilité jiite état mais boo duggee ci boo dëkkee ci dëkkuwaay buy loolu di xewee rek war nga am lu la metti te boo taxawee ci fi nga koy saafara évidemment ñàkk conscience c'est pas possible elle est forte conscience bien avant et une grande responsabilité qui nous incombe boo xamante ne dañ ko nar dañ nar wàccoog moom incha allah rabbi li ci des nag évidemment